di ñuy Sénégal non ñun amuñu temps gaa ñuy santaat yàlla wér a wér di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon gars yi mbokk yi nuyu nañ leen bëgg nañ leen fi nga xam ne moom mooy fii waaw waaw nuyu nañ leen ziar waaw maa di leen baalu àq di leen baal àq di sant yàlla di julli sey Muhammad ma alayhi wa sallam di sant samay waajur yàlla na yàlla xare la àjjana képp ku ñàkk waajuram yàlla ko yàlla xare àjjana képp ku defee waajur yàlla na yàlla guddoo ay fan wér ay cëram ba ñu gunge gunge njaboot ba kanam lool ndax waajur daa am solo si doomu aadama di sant sama sëñ sëñ Moussa Nawel mbake di sant wax dëgg yàlla sëñ Abdou Karim borom Karim al di sant vraiment. soxna Ayda Saliou nekk ku baax si ñun waaw ci woon Maam di sant Mbaye Diouf Dia suñu président baax boobu waaw di sant sama tonton ay dara di sant aussi waa axlu bayti rasul bi yëpp waaw di sant fukki pencu ñaaru ndakaaru yëpp di sant waa yoof waa Cambérène bi ñu juddoo yaroo fi di sant waa fiñ mi sama koñ parcelle 1 ba 26 bàyyiwuma leen cité Fadias Nations Unies Cambérène 2 cité douane vraiment golf sud Caaroy Diamaguène Sicap Sicap ñu ngi bëggee ñëpp Pikine parce Géejawaay maam da moo jur parcelle waaye yoof dañ ma yónni yàkkamte ma jox ma yóbbal te stade yi nga xam ne jox na ma yóbbal waaw wakaam noonu sama maire yi yan a baax sama paa yi fa ne gars ñëpp ak seen xol rafet vraiment di bëggee waa ndakaaru yëpp xam ne fii lañ juddoo yow def Dakar lañ bokk waaye ku xëccoog ma bàyyi ak yow ndax aussi ref ref yi ma paal waaw ogo anga tig cig taxu waaw cigi waaw boo déggee dara rek dara tax tey di déglu ñi gars yi ñu jàpp ci combat bi ñu mel ni ay Kéba sama xarit yu baax yooyu nga xamante ne depuis xale ñooy ñu baax ñooñu nga xamante ne ñëpp a ngi jàpp ñu war a jàpp yëpp ñi leen di wax ne kaa leen li ñu soxlawuñu lul jëndal gaa yi ticket ñu dem stade ndax jour boobu dafa war a neex waaw ay ticket rek lañ soxla ñun soxla wuñu ñëmbal duñu ay machine luñu soxla ma ay billets rek pour booy yi ndax boo nar a génne sa cachet billet yi day metti voilà donc jëndal booy supporters yi nañu ñëw feesal stade bi ministre bi tamit jéem a jàpp ci affaire yi comme journée am la xam ba léegi gisaguñu un franc ku ñu euh, ministre de la jeunesse yaay drapeau bi drapeau am la donc waaw donc moom tamit ñi ngi wax ne mu ñoo jàpp journée bi parce que loolu mooy mooy mooy mooy lu gën a rafet aussi ci jeunesse bi comme moom mooy gérer jeunesse bi moom la ko moom la fi yàlla teg moom la fi président bi donc li ñaan nag mooy autorités yi ñëw teg làmb ju loxo teg sport bi loxo ndax mu avancé voilà loolu daal la ñuy ñaan vraiment. retour sos ci làmb lan parce que benn moment gisoon nañ ne sori woon nga làmb ji ba ñëpp ne bàyyi woon nga làmb lan moo la motivé waat ba nga dellu si waat ci làmb. waaw loolu ma defee delloo si làmb mooy bàyyi bi boo ko déggee reculer pour mieux sauter la woon parce que boo xoolee tey boo nekkee si dynamique gu defet foo nga xool lan la doo topp bëgg xaalis rek di di teg la defet loolu moom nu ma ko dundee donc dama defaru defaru ba jàpp na jekk naa waaw moo rax ma duggaat ci làmb ji ba ma ñëwee gis nga premier combat nu mu demee bii mooy deuxième bi tey kon c'est un de confirmation waaw maanaam dama war a dëgg retour bi assez retour bi ndax boole leen xoolee yàgg naa ci yoon bi torop yàgg naa ci yoon bi torop yeggaguma te maa ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla ma yàlla yeggale ci yoon bi euh, dum nekkatuma xale bu defaat 10 ans 15 ans ci làmb donc li ma des ci làmb yëpp ay ndam laa si bëgg loolu moo waral liggéey bii nii sama kër ci dev kër ci carré ñi fi ne ñoom ñoom baalo ñoom booy fay ku lim juum us euh, garga gaa yëpp ku ku juum gaa yëpp fi ne équipe bi fi nekk dóor dóoraat bi fi ne nga xamante ne tey dama fi nekk rek dama war a gunge ñii parce que ñii fi nekk nii ah tey suma duma adversaire bi ñoom ñoo war dal ci kawam waaw parce que ñoom ñooy les futurs champions donc man li fi li ma fi dese ci làmb lépp bu soobee yàlla ay ndam lay nekk ay ndam kese incha allah incha allah yàlla duma yonante waaw déggee mooy Ada Fass da nga koy duma da koy daan loolu nga wax de daa mel ni laa ñaan yàlla duma ko daan laa ñaan yàlla te yàlla na ko yàlla def ah. waaw est-ce que sos liggéey ko may mu duma aada daan bi dafa yàgg a commencé liggéey bu du léegi ma jële avance ba rek maa ngi liggéey bu dee la yàlla liggéey rek lay fay gëm naa ne suñu borom na may ndam ndax bu ma neexee teg ko ci ni ku gën a sonn ci combat bi depuis commencement ba fi ñu toll nii yàlla loxo yàlla may dem su ma neexee teg ko foofu ndax xam naa ne maa gën a sonn maa gën a liggéey taxawaalu ma génnu ma dew ma soirée dew ma fenn entraîné laay def dem États-Unis def fa trois mois pile de mois nekkuma si dara loo xamante ne mooy respecté combat bi donc dew ma man ba à l'instant combat mu bëgg a accéléré non non dama yàgg liggéey nekk Amérique nekk fa ay at ay ay mois du mois entraîné fa ñëw fii fii la entraîné pare demaat entraîné yaa ngi dégg ñëwaat ci nekkaat ci ba combat bi des deux semaines sa waay ah naa de liggéey naa ak lu ci mënam liggéey naa te mosumee koo daw incha allah ci stade bi yàlla bu ma caddugu rek mais su ma demee daw yuuxu bale barki sëriñ bale xoolal def nii joow ah ah wàcc ci ndëru nga xam ne komba dëgg moo nekk nii tigi lii combat la du combat caaxaan gëj naa respecté combat nii waaw bale boobu ngay wax aada mën na ko di mën naa bal te na dool te gune la te waa dañ koo yëpp ndax nag dafa jóge ci benn combat da ciy jëlee défaite mook te dégg nga bërki dem seetaan naa leen bërki dem li mu la wax aada moom daa jàpp ne yow moom amoo foo mën a jaar ci moom bëri ci ko man ma jog si ñaata komba defet donc defet waratuma komba bi combat xare badar la combat soldaar la komba sodo combat baay faal may dégg combat baay faal ak sëñ sëñ lamp faal maam gunda faal maa leen di bëggee baax sama sëriñ baax maam saaliw faal yaaram bi yaa ngi dégg di leen wax ne combat bi combat soldaar la parce que dama dawal dem Casamance benn jour yàgg na nag avant ma jël combat la sax gis militaire bi benn militaire bu ñu dóor balu loxo bal bi fi mu wan fi bal bi jaar ndeysaan ma woo ko mu ma koy jox xaalis mu ne ma déedéet du ma ko ma topp ko doo bëgg nga lekk sama ñaq mu ne ma déedéet billaay sama yaram daw ma xam ne ñu ñu ngi ci dëkk bi ah ñoom ñu ngi ci àll bi. kon moo tax ma militaire yi bàyyi naa leen xal trop ci combat bi waaw combat bi su ma ci amee victoire incha allah dama koy dama koy dama koy may militaire yi soldats yi soldats yi sama dof jàmbaar yi commando yi dof yi nga xam ño bu woon ñoom Sénégal mi ngi nekk dóom bilaay walaay taalaay waaw man gars yi dañuy fan gars yi dañuy mbër yi mais man dama fan commando yi Baye Fall man Baye Fall laa mais dama fa dama bëgg ku ku gëm boppam waaw dañuy dama bëgg kuy def waaw Serigne Sall nit ñoo na fa yëkkati ay xaalis jox ko mu ne ko yaa ngi soog a tolloo ku xaw ku e xel kom maanaam liggéey bi liggéey bi di ñax moo ëpp doole taxaw sax di dugal sa poos kon jaaraama Baye Fall jaaraama soldaar yi. kon Aada da bëgg a jaay jikkooy commando Dimas. jërëjëf loolu laa bëgg dal ci koom. dal ci koom incha allah dal ci koom il faut mu pare xeex pare bëre. incha allah incha allah loolu mënu si dara. làmb ji moom il faut mu xeex dina xeex dina bëre. incha allah loolu maa la ko wax gaynde parce que dafa am lu ma ñit ñi jëwee ma am tolof tolof laam yi ne nekkoon jël ay coup kawo am ay gars yi naan ay expert lañ ay jos boobu baaxatu di wax waxu dof fii ngeen ne xamee ndox baab ma boobu baax na wala baaxul te dinaa xeex pum pam pim pam pim pam pim dina xeex dina bëre billahi wallahi taala dina xeex dina bëre dina xeex gaynde la waaye maa la wax lii gaynde yow mos naa wax luy deñ yow daanu fi ni mbër ba damm ko ah ñaata yoon laa fi daan mbër ba damm ko ah dama koy damay xeex ak moom day xeex il faut xeex bim pam pam joor addo atte ba atte ñu daw yuuxu stade bi jóg yëngal ko waaw Fatma ja mooy laaj Fatma nga ne ah dégg nga de dégg nga li ma la xam nga ñoom ci ay bataille psychologique lañ nekk man dama prouvé ni may communiqué ni ngay bëree ku ko wax xamoo li ngay wax kan laa fi daan dama ne kan laa fi daan kan laa fi communiqué waxa moom daan ko wax dama lay daan ta daan ko ñaata mbër la da nga ko mën a compter kon dañuy nax seen bopp seen xel la ñuy fowee bu boobaa nañ xam ne li ma wax loolu laay bu soobee yàlla mooy yow dama bàyyi non moom non moom moom moom moom man tollu ma fu ñuy ku ñuy jàngal bëre bay waxu prise yaa ngi dégg ñu ko dàq bëri fii lañ jaar kon yo yooyu mi wax noonu calculé ma ko ma xam la laa xam jour boobu li ma liggéey laay indi voilà li man ma nee ko calculé wu ma ko Ada Fass calculé wu ma la yow ah. ba ngay wax ay prise ak ay nii ak ay mbot yooyu yaa ci toll yaa ngi dégg man li may liggéey laay appliqué duuma la daan la loolaa bëgg bu sooba yàlla sama yoon ñëw ci ay prise prise da nga koy wax xale bu ndaw. mu doon te neen importance ndax boo ci géntee li mu la mën a ubbil boo ci génnee jox oh, Anta dafa am technique barki sëñ Bamba nu mu ndaayee nu mu ndaayee noonu la boobu baaxee. li ma waroon màgg yëpp ma ngi du màgg daa muus parce que combat bi moo tax bu ñuy wax bu ñuy wax xamuñu lii moo jar a expliqué li mu wax nii moo jar a parce que c'est un combat bu ne maanaam daf ma ko daf ma war a yóbbu c'est que ñit ñi loolu lañ yaa ngi dégg bu dee la am na temps 15 ans 20 ans ci lam mais man maa amatul temps waaw bu doon àdduna ma ne ay prolongation moo ma dese kon na fay naa xamee nañ waxante dëgg waaye tamit. ah mais dama bàyyi defa mën defaat dix ans wala quinze ans ne xalaatuma ko ndax sama ndax yaa ngi fi dama leen war a gunge ñoom booy fay ñoom ñang baal ñoom giro sera a yi ñu ngi fi dama leen gunge ah ku lim day juum boo yaa ngi nii taxaw yaa ngi dégg moo leen gunge lu ma fi dese nee naa la li fi dese incha allah ay victoire laa bëgg a dëpp jox leen lengee bi ñëw taxaw di leen di leen supporter échange ak ak gunge n'est-ce pas ah ah futur champion yi naa ngi nii léegi maanaam ak benn nombre de combat ma des moom su ma ko daanee moom day am na temps comme am na mi ngi yaa gis mi ngi buloo ne ci soirée am na jot man maa amul jot. ji rek loo ci mën a dégg nañ ko way. yer waa ko yee jabar wan nga a daal maamur nañu way làmb mu ngi noonu. wallaay dëgg la.